How about local bar? ayca mbokk internet bii mooy dernier combat spécial si diggante Ambroise écurie Tefess ak Sa Diakhaay écurie Waalo Sa Diakhaay moo ñu wan ginnaaw Ambroise moo ñu wan kanam abi baa ngi sifflé ba ngay waaj bokk <laughs> moo ngi lay jox ay conseil ne ko pare nga pare na kon pare nga yow pare nga at bi ne ko bañ dàqante wala ngeen bëre di xool bi mujjee ci diggante Ambroise ak kii di Sadio Xaay waaw waaw su fekkee jóg nañ géwal rek ngay dégg déggal ma géwal eh géwal waaye bu amul si réew mi fu ñu jëm déggal ma lii. ñaari mbëree ngay léewtoo abi pousse seen ginnaaw balaa ñu dal sa da nga toog waaw kay jërëjëf ñaari mbëree ngay léewtoo drapeau wuli la combat bi dañu war a wululante parce que drapeau wuli la ku ko tuddee du wuli bi ko tuddee du neex parce que wuli dafa neex diggante Ambroise Sarr Aiguille Tefess Ambroise dakk na lew tooba ma ngay xool borom ñaari mbër lew too Sadji Xaay ngay déglu Sadji Xaay ngi accéléré dem dóor te dóoru ko si mu nekk déedéet bu def lool <laughs> at bi nee na jaxaay costume bi ne nga teyal eh ñoo ngay rokkosante ñoo ngay ñoo ngay wulwande sax laay wax parce que daa ba eh, wul na ko un deux daa braqué na ko deux deux trois appui daal ne appui nee na appui atta na leen appui atta na leen amu fa dara amu fa léegi bëre waat costume jóg na costume jóg na na ko xoolal bu baax la def wàcce say garde eh <laughs> bi lu muy neex ci ñoo la gën a jaxaay bi loolu dugg ci biir il faut déggee nga moom naan ay ca ay ca ay ca moom combat bi sa la xelam nekk ñu ñëw ci combat spécial Djibson Production dimanche 23 octobre 2022 fii ci arène nationale ñu ne la amee grand combat bi ci diggante Niang bu Ndaw écurie Walo ak Armée bu Ngéwal kii Falang tey ñaari mbër boobu tey bii combat combat bu nar a neex ñaari combat yi dégg waaye balaa boobu nañ nañ ne si bii moo xam ne moo nekk dernier combat waaye nekk neuvième combat de la soirée mu diggante kii di Ambroise Sa Diakhaay Sa Diakhaay moo ñu wan ginnaaw Ambulance moo nge moo nge lu ñuul li ñaari bëri na ngay dëkkante baaraam régal ma lii eh, bay eh Ambulance dem na bay def te demul Sadio di ko déglu Ambulance dem na bay def te demul Sadio di ko déglu Sadio Xaay na lee tooba dóor na dal na <laughs> dalaa pet coup perdu de tey bii combat ñaari mbër ya ngay leew too ab bi baa ngi surveillé trois ab bi yëpp ngi toog di xaar nekk sukk di xool ndax trois ab bi dina am wala du am ab toogal jërëjëf tey bii combat ñaari xale yi di ngeen ñaati combat bi tey lépp fii lay leer instant yii seen si projet seen si projet yi danañ tekk man ak yow da ngay sama cameraman yi sax ngeen déggu man mii ak yow rek ngay dégg tey eh! <laughs> eh, sa jaxaar dem na bay dem toxawaat Ambroise naka maa lay xaar suqante leen bëre leen bu leen ndax buntu am. bunt bu amee daan am daan bu amee yéen ñaar kenn si ñeen kontaan ñun ñu jóg xaar dernier combat bi kenn ñu ñaar kenn daal ñu jóg ñibbi jël suñu bagage faxasalu dem xool leneen ee eh, ñaari mbër yi ngay leew taw si witi saako ñaari mbër yi si witi saako yi léegi seen biir mbër yi bëri bëri leen tey bii bu ma tee at bi day tas combat bi léegi maa ngi dama sax waxoon naa leen ko déggal ma lii dama xam eh, xam suqi na am ras fayu am ras daal door ak tànk ba jël na tànk ba waxoon na ko déedéet amagul déedéet di nga mën a am waxoon na ko eh, suqi na ko un deux trois quatre cinq six sept lu xas wàcc na jàpp na ko déedéet ran fay bu wër ka nangu wàcc dellu si suuf ma lii ay waay su ma jërëjëf nag su ma ko amaan jëlee dee saf ñu dem supporter xoolal ma lii xoolal ma waa mooy lamb waay waay lii moo neex eh, mu def nii sama xel ne mis Ambroise Gomis mën na ko ay waay lii la la xoolal ma si ba teeri waa naa xaw lii lii